man tey maay jigéen bi am ñeenti jëkkër xam nga benn góor moo daan am ñeenti jabar lislaam nangul ko ko man nag tey maa am ñeenti jëkkër yu amul njariñ kon mooy yaa kaw ñooñu dama leen di yeenu ba ca kaw sëñ Fallou waaw nga candidat bi lu mu wax muy Awa Diène candidate di Yewwi Askan Wi nee na moom